man maa ngi tudd Soxna Rokhaya Niang présidente GIE ñàkk jariñu ñàkk jariñu mi ngi nekk benn GIE boo xamante ne mi ngi nekk ex axe Dakar 2 euh, nekk Kër Massar ci centre polyvalent bi ñuy liggéey ci wàllu céréales locales ak ci wàllu frise de légumes ak ci fabrication savonnerie GIE bi moo ngi boot ay njaboot yu bëri yu takkul a xaw a boot moo ngi ñi fa nekk di fi liggéey ñi ngi toll ci 92 membres ñuy liggéey ci wàllu transformation céréale ak ay ji ak di def savon di def eau de di def fabrication savon liquide ñu nekkee foofu di liggéey ci wàllu GIE bi suñu sang suñu kilifa dafa organiser benn foire boo xamante ne social la ko delloowaat may ñëpp koo xamante ne rek da ngay yëngatu ci wàll googu te amuloo possibilité wu am stand wala nga am foo mën a exposer sa produit mu yombalal ñu ko may ñu kenn ku nekk stand fii ci place de souvenir ñu ñëw fi nag indi fi suñuy produit ànd feek ñi nga xamante ne ñoo bokk ak ñoom liggéey bi ñu indi fi lu dellu ci céréales dellu ci caakri dellu ci cere dellu ci araw dellu ci sànqal dellu ci brise de maïs dellu si ñebbe dellu si cere ñebbe caakiri ñebbe ak poudre de ñebbe poudre de buy ak bisaab lépp loo xamante ne daal nit ki dina ko soxla di ko jëfandikoo exposé nañ ko fi bu dee ci beneen côté bi tamit ci wàllu frise de légumes dañuy defar ay sirop siro concentré yoo xamante ne dañuy defar dita dañuy defar màdd dañuy defar màng dañuy defar buy dañuy defar bisaab dañuy defar kinkiliba dañuy defar ngeer lépp loo xamante ne daal meññent la rek dañ koy defar loolu la ñu indi tey exposé ko fii mu dellu ci sirop yi encore tamit ñu indi fi ay boissons yoo xamante ne dañ ko defar mu nekk naturel da ngay jël rek seddal daal di jëfandikoo mën nga ko teg 3 mois sans frigo doo ci am benn jafe-jafe moom la ñu indi di ko wanaale nit ñi tamit ci wàccaayu koor gi mu nekk loo xamante ne set na sel na yiw na laab na parce que ñi koy defar set nañu sell nañu laab nañ te kenn du ko defar te yaruloo njàpp kenn du ko defar te setuloo yéene ñëpp ñu naan ko mu sedd guyu barkeel ñëpp jariñoo ko comme ci weeru koor la ñu jëm nag lépp a set sell ñu war koo jëfandikoo looloo tax ñu indi woon ko fii tey ci foire bi exposé ko waaye tamit di wax ne keneen koo xamante ne soxla na ko tamit suñ ñu contacter ci centre polyvalent bi dinañ la indil loo ci soxla dinañ ko indi ba sa biir kër bu dee koo xamante ne sax mi ngi bitim réew tamit dañuy import export dañ koy def dañuy chargé ay conteneur keneen ku soxla tamit ñu liggéeyal ko ci wàllam ku am ngénte aussi suñu commandé tamit dañ koy defaral ku am takk mariage dañ koy defaral su gàmmu jotee wala màggal lu ci doon tamit GIE bi dafay produir di ko jàppalanteek mbokk yi ñun ñëpp mu nekk loo xam ne rek tabaski neex dagan la dina set dina sell te di nga ci am sa biir waaw ku ñu soxla mën nañu contacter ci 77 534 14 87 wala mu contacter contacter ñu si 70 406 36 34 mën nañ si contacter ci numéro yooyu bu ñu ci woo rek mën nañoo jot.